asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp koo xamante ne nga bés ci chaîne bi la bul xaar aboneel cliquer ci cloche boobu ngay def boobu ndóol nga mën ko seetaan bul fàtte tamit vidéo c'est très important mbokk yi tey ñëw wax ci dossier Sofiane Diop bëri na ay sénégalais yu xamante ci commentaire da ngeen ma wax ma ma insister ma bañ a bàyyi sama loxo euh, bul décourager Mouhamed sax laa dégg ñeneen dañ ma woo ne ma Mouhamed pourquoi nga toog ay mois yu bëri waxoo ci Sofiane Diop alors que yaa ngi wax si Boubacar Kamara keneen ak keneen jusque dossier Sofiane Diop li tax mu compliqué woon mooy que dama gisoon ne dafa nekkoon stand by aussi tamit ma gis si espoir yi ni muy épanouir ni mu fa kontaanee mu nekk jarul yu xamante ne euh, bëgg nañu Sénégal donc na incité si côté boobu mais quand même euh, de autre côté ñi ngi ne moom may incité comprendre naa parce que am na benn impact quand même parce que man jours yu bëri maa leen def ay binational wala binational plutôt euh, laay wax de. ñooñu seen famille ñoo lay contacter ne la waaw laaj la sa xalaat sa gis-gis parfois nga waxtaan ñoom Instagram parfois nga wax ak seeni cousin seeni frère wala seen mag affaire yooyu donc day am résultat quoi aussi tamit bi ma demee si Aliou bi dernièrement booy bii nus naa la mu wax mais nee na bul bàyyi xam nga donc coach yu bu la waxee loolu presque noonu la noonu la ma ko waxee quoi parce que waxtaanoon nañu lu bëri si ay Amadou Onana ak yooyu moom Aliou xam na li may wax donc bëggul ñu ma bàyyi affaire yi naa continuer di insister léegi la laa mën a interpeller damay wax ne tout juste que moom comme que moom fii Soufiane Diop moo ñu ngàpparu fii nii occasion la àndoon pour que fédération sénégalaise de football ñu ñu def benn na laa ko mën benn daje euh, benn restaurant de la place exposé que seen carrément seen projet parce que dans dans ce système 4 2 3 1 le parfait numéro 10 c'est c'est Soufiane Diop quoi moo wax ko ma bañ ko wax yéen sénégalais yi xam ngeen ko xam ngeen ne moom booy bi numéro 10 la te boobaa di jël Sadio à uh, gauche bu baax ismaël sall ngay nekk ci à droite attaquant de pointe bu laaja loolu attaque manu ko quoi donc mu ngi nekk di performer bu baax du côté de monaco boy bi nag seul problème mooy france bëgg a jouer ba ñu sénégal day ñëw sénégal tout le temps vacances et tout c' juste que france bëgg a jouer c' est sûr boo leen gisee ma toog ay trois mois waxatu ma si moom c' est ça parce que bu ma si woon sonal sama mais ñu bëri la ne bu insisté Mohamed mën na impact donc loolu moo tax ma ne dans cette vidéo et que du moins au moins fii ci ñu ci ñu réew Sénégal et que occasion am pour mën a pourquoi pas. pourquoi pas parce que il suffit juste nga ñu exposer que benn benn benn projet bu intéressant parce que boo dégloo ñoom it nga ngay xam Pape Gueye Pape Gueye doon wax ne euh, Bamba Dieng dana ko fan foofu sa Sénégal ñuy wax ci yow xam nga donc papa aussi bëgg musée Sénégal mais bu ne Sénégal foofu ñoo ngi wax ci moom ñun ñooy wax ci moom ñan nañu waxante dëgg rek du RTS du Sen TV du TFM du ITV du benn rajo sénégalais wala télé sénégalais bu taxaw daan Pape Gueye wala bi national bi ñun youtubeurs yi ñoo koy def muy man muy sama yeneen naataango donc man sama bopp laa xam sax li ma def ci ay vidéo ci Pape Gueye pour mu ñëw bëri na donc Bamba Dieng bu demee na foofu ci réew ñooy wax ci moom wax ci moom ñun ñooy wax ci moom ñun man ak sama yeneen naataango ak peut être nekk si rajo yi peut être xaw ma si dara en tout cas do ça veut am na impact loolu loolu Pape Gueye moo ko waxal donc bëri na ay joueurs yu xamante ne noonu la demee que ça soit des Bouna Sarr dama si insister insister insister ba ñeneen dañ ma si jéppi dañ ma si jéppi mais xamoon naa ma si mere par rapport ak 2018 mais foofu boo bëggee joueur bu baax da ngay insister quoi parce que man bu ma suñoon ay coupe d'Afrique dafay duggaat duggaat duggaat xam nga donc loolu moo tax may insister en tout cas li ma mën a wax ci vidéo bi la rek mooy que fédération sénégal de football euh, Aliou Cissé si actuellement yaa ngi Sénégal si toutefois temps bi may na la pourquoi pas def benn daje ba si benn sens de la place xam nga ngeen waxtaan lu bëri ndax boy bi Maroc moo ngi fi mais li mu ñëw Sénégal bëri na trop donc mënul écarter carrément Sénégal moom moo ngi ci xelam donc mosu ko sax écarter c'est juste que moom eh, boo xoolee ay interview am sax moo gën a baax par rapport ak ñoom Nampalys par rapport ak Bouna par rapport ak Mbaye ba tey toogul fenn ne man du ma jouer Sénégal ba tey def france nekk di woo bëgg naa ñu woo mu france woo nañ ko france mais waxul le contraire ba tey donc man je garde espoir ak la fekk ma gis que sénégal ni pour mun possibilité am na ba tey waxtaan am na pour mën a wax ak boobi ndax bés boo ko attiré fii si réew mi sénégalais dinañu am numéro 10 ak suñu stade bi di waaj pare mooy li wax rek y a un projet Euh, Coupe d'Afrique 2023 ku moytul day am waa Côte d'Ivoire loolu la ñu wax euh, préparé Coupe du monde yi di ñëw donc boo amee benn Sofiane Diop ak ñoom Diop yi di ñëw ak Boy Pape Matar Sarr ay Noah Fadiga xale yooyu noonu ñoo ëllëg bu équipe nationale du Sénégal ay Sango Diallo c'est des joueurs yu xamante ne ak Sofiane Diop boo leen boolee bu baax a baax ngay am bu ñoom Sadio Mané ñoom Gana Gueye ñoom Cheikhou Kouyaté nekkul donc mbokk yi ni mu nekkoon vidéo bi ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV